waaw ñun tey ñu célibataire ñun dañoo am lu ñu métti am nag suñu doléance bëgg koo wax di wax nag président bu PS bii falu dañoo bëgg nag mu def décret ba député dem assemblée nationale voté ndax ñi am benn jabar am ñaar ñi am ñaar am ñett ñi am ñett ut ñeent ndax ñu ñu bëri si dëkk bi ëpp na ah. sonnaaki gelle quatre virgule cinq million ɗo fawmo sénégalais salibataire loolu loolu bi nanga wuñño takk sooxe ñene jigéen ñi bëgg ñoo sëy bëgg na ñoo sëy dañoo bëgg ñu takk ndax mënoo nekk si mbedd bi ku may takk ku may takk ko ndax góor a dinaa takk jabar nangam dinaa takk jabar sa heure nangam wala at bii mais yow mënoo ko da ngaa war a mën a toog bañ takk la d'une part sax ñun am nañ si part de responsabilité ndax am na xam ne moom suñu lambee xeeb xeebaate moo leen lambal kii amul oto kii amul kàr-kàr amul kër gu rafet mënuma yor war dafa ñaaw mënul sañse am na ñoo xam ne loolu moo leen lambal waaye nag ku wax lii wax la sa des góor ñu ñu otakul commencé ko si yow ndoy baas Mouhamed Ndiaye Aba ba ci directeur rajo ba nañ nañ jël ñaar nañ ñu jël dimbali ñu nit yàlla takk ndax bari nañ quatre virgule cinq millions ah, loolu loolu nag koo ko joxoñ ko nañ ñu dimbali député yi nañ ko voté assemblée nationale voté ko ñu takk ñu ko sakk at bi a soo tollee deux ans takk keneen suñ ko defee noonu si yàggee suñ jeexul di dañ wàññeeku maa ngi lancé ñëpp ak lancé vote yëpp ak bis bu ko député yi voté nañ génn takk suñu brassard rouge génn def manifestation ni